nga xamante ni mooy njiitu hôpital Suma assistance di baba Niang jàpp nañ ko fële ci Podor ñi ko jàpp nag ñoom ñooy takk der yi mu ngi ñëw ñaari fan rek nga xamante ni Ousmane Sonko entré woon nañ ko ci clinique Suma assistance laaj bi rek mooy lan moo tax ñu jàpp kii di docteur Niang kuy liggéeye ci mairie Médina le 17 mars lii la waxoon na mu ne suñu benn ndaw dafa demoon ci clinique bi ngir faju bi mu amee ay gaañu gaañu ci manifestation yu amoon le bi ndax Pastef la bokk wala déet ci noonu nag ci la ki nga xamante ni moo di maire Bamba Fall porté plainte clinique bi bésu manifestation yi mu nekkoon le 16 ñu gis benn waay am lu mu sotti kii di Ousmane Sonko moom mii di Ousmane Sonko nag wax ni dañ ko bëggoon a fàtt ci suma assistance takk der yi laaj nañu ñi nga xamante ni ñoom lañ doon wax ni ñooma ñoo doon fàcc kii di Ousmane Sonko ñoom nag bi ñu leen laajee nee nañu gisuñu sax Ousmane Sonko médecin wam ñu laaj ko mu ni daf ko gunge woon rek wante def ci dara fi mu ne nii nag laaj yu bëri am na kan moo doon fàcc Ousmane Sonko ndax takk der yi am nañu droit saytu lu nekk ci dossier médical bi ay laaj yoo xamante ni mën na junj jàpp ki nga xamante ni moo di docteur Babacar Niang di jiite hôpital suma résistance